suñu régime moo laaj ku fi ñëw dañ lay bindal discours boo jàng ñu def ko ci journal bi ni yaa ko wax ma ni ko duma ko jàng mu ni ma doo ko jàng ma ni ko déedéet ah mu ni ma kon yaa tooñ sa bopp ma ni ko déet yow yaa tooñ waaye man tooñ ma sa ma ni ko te yàlla junj na ci alquran seen wàll seen wàll yàlla junj na ko ci alquran ma ni ko moo tax lu ne àttan ngeen ko fi mu ne mu mer ba bi ci boppam mera mera mer ba bu mu fay jóge dafa woon naa dina ñu ma jël si ci guddi nga yàlla xam na ko waaye ma toog rek ba ci ëllëg si ci une heure téléphone bi sonn ñu ni ma wuyu ma wuyu mu ni ma man maa nekkoon ak yow bi ca militaire ya mu ni ko wax lu xew mu ni ma maa ngi ma ni ko looy def hôpital mu ni ma dama daanu crise ci guddi gi ma ni ko ah, loo bëgg mu ni ma nga seet ma lu bon bon nga seet si ma bopp ñaanal ma ma ni ko baax na danaa fa ñëw yàllaate fi may dem di ko seeti nekk ñu ngi changé gouvernement bi te moom dañ koy génne muy ñaari musiba ci wàll loolu kenn mësu ko gis ma ni ko tooñ baaxul ma ni ko tooñ baaxul àdduna li ci yées mooy tooñ ma wax ko ko ma ni ko bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ waaye faf mu jóge fa alku ndax kenn xamul loolu lan la parce que gis gan gu ñëw nga ne ko par lii ñu ñu bind moom ngay jàng ñu ni yaa ko wax loolu koy kenn du ko def loolu kenn mësu ko gis tabarkalla tabarkalla te yépp nag kilifa yi ñoo ciy jàpp kilifa yi ñoo ciy jàpp tabarkalla moo tax yàlla nu yàlla sàngu sutura rek malaanu sutura yàlla sangu nu ko tabarkalla te taxawunu tabarkalla ndax ñii day bala ñoo jóge fii ci dëkk bii li ñu bëgg nañ ko def maa la ko wax moo tax rekk bu ñu yemoo jëkk leen jëkk leen rekk nag waaw parce que li yee xew jaaduwul yee xew fii jaaduwul jaaduwul boo seetloo xam ne yee xew fii jaaduwul mukk dem nu yàlla musa dem nu yàlla musa yàlla musa nanu yàlla musal jël yi ñuy sànni di sànni oto yi accidenté nit ñiy feebar ñu nekk ci te dañ ko xam parce que ixraa la ixraa la science pure la boo xam ne mag ñi dañ ko xam waaye ñoom ci yàlla lañ ko jële dañoom ñoom caay-caay rek lañ ciy def moom la ñu tudde ixraa baaxul moo tax daan nañu xiirtal gaynde ci nit mu dem rey ko daan nañu xiirtal jaan ci nit mu dem matt ko ci xaraa lu yomb la ñoom nag bu ñu ko féetewoo réew la jël rekk taal ko benn yoon mu jeex grande guerre yi nga fi dégg yépp génnuñu yëpp génnuñu ci moo tax yàlla nu musal ci ñoom boo fekkee fu may xuloo danga réew bu bëgg a parce que duma leen gis waaye duma leen may jàmm dama leen di soow rek soow rek yéen a mën a tooñ waaye bu leen yàlla jàppee ngeen dem àllaaxira li ngeen di mën a tooñ ak seen rek soow leen a soow a soow a soow a loolu kenn mësu ko gis waaye ñii ci baax nag mu baax lañ may ñi ci des nag ñoom bu ñu sañoon réew mi dafay xëy rek tàkk te boobu baaxul baaxul de baaxul kenn ñaanu ko yàlla kenn ñaanu ko yàlla kenn ñaanu ko yàlla waaye ñoom it ñu nga ak seeni pexe ñu nga ak seeni pexe yàlla xam na ko te jàng nañu lu nekk nag moo wax la ko jàng nañu lu nekk lu nekk lu taal dëkk ak lu taal réew yomb na leen yomb na leen de yomb na leen de te nun yàlla musal ci ñoom te musal njaboot yépp ci ñoom te aar leen nag ci biir ak ci biti aar leen ci biir ak ci biti tabaarakallaahu moom barsax lañu daan ragal te bari sax sécurité rekk fa nekk leneen nekku fa mbooleem ñi ñu suul ñu gis tabaara yàlla rekk a sañ vingt cinq milliards mu ndëxëñ leen ci biir suuf si vingt cinq milliards d'individus yàlla ndëxëñ leen ci biir suuf si bu deful woon sécurité bari àdduna tukki bàyyi nag sept milliards ñoom ñuy taxawaalu ci kaw suuf ñii di bay ñii di liggéey ñii di togg añ ñii di togg reer set milliards yi nekk ci kaw suuf waaye vingt cinq milliards a ngi tëdd ci biir suuf si bu sécurité amul woon ca bar àdduna tukki walla ko waaye sécurité rek a fa nekk nag kenn du la jox kayitu ndox kenn du la jox kayitu courant waaw kenn du la fayu impôt kenn du la laaj dara tabarkala bu fekkee danga nekk soppi yonent bi rek nekk fa waaw ah, kooku lu ko dàq amul lu ko dàq amul ci barsax barsax bu bonoon sama turandoo kenn du ko tuddee barsaxul maxtuum maa la ko wax maa la ko wax fa musiba nekkoon cheikh kenn du ko tudde al barzaxul maxtum al xutbul maktum wal barzaxul maxtum kon kenn du ko ko tudde yàlla xam na ko ndeysaan sama baay bu baax bi sëriñ Habib Tall bi gaañoo radiallahu taala anhu ba mu tëddee ca lalu hôpital la ma yónnee lettre jox ko Pam Malick di ko jox ko cheikh Pape indi lettre bi ma jàng ko mu ni ma bu leen nit ñi waxati maktum rek yem ca nañ lay wax al qutbul maktum <laughs> ku baaxoon la ci man wallaay ndeysaan ku baaxoon la ci man ku baaxoon la ci man ma ni ko ah, bi ma amee juróom ñaari weer ci àdduna laa jëkk gane ji la xam na ko yàlla xam na ko allah jaab du kan nii bàyyi leen ma ma dem seetu ko ca ndar sëñ Babacar ni ko ñemewuñu loolu nan ko gàddu indil la ko noonu lañ ma gàddu yóbbu ñetti fan laa fa am daanu feebar allah jaab du kan ni kenn du ko faj ko ken jox garab bu ko kenn faj ñu ko bayyi présence su turando ma dis ci mom atanuko lolu moy li ci ne te kan la alaaji abdu kan du nitu jaaxaan du nitu jaaxaan yalla xam كون نك سانت يالا رك جوار والله ديسا والله ديسا والله والله ديسا wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ct ct ct wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ct ndeysaan xaadi Mouhamad Abdourahman nee na ma dama nekk ci situation bu difficile nee na sama mbokk yi ni ma danga war a dem ziyaare ji yonent yi pour diis ko ko nee na ma ni leen damay dem di si ko xaaj Mali ndax du teqalikook yonent bi kon ma moo tax ba mu ñëwee ba tiim ba mu ne mu mu wax ki ko doon digal loolu mu ni ko xalili ya uj wanzil bi saaxati dal qabri nazuruhu لإصلاح المهم من ا لإصلاح أ وإصلاح ر ل ضدنا ومحو خطايانا وما كان من وزن تتلل تبوب مملا يب يا كارم يوتيم بملو مودو دي جوالول روح لاني تبارك الله تبارك الله سنتي الله رك موارد sant yàlla rek moo war tabarkalla la yàlla may na nu mag ñu baax ñu amul morom ñu amul morom tabarkalla yàlla na ñuy jariñoo seen xalaat yàlla na ñuy jariñoo seen xam-xam na ñuy jariñoo seen leer tabarkalla tabarkalla yàlla leen ko defal yàlla moom dafay seet ku ko neex rek mu defal ko loolu moo ci nekk fa man nag naka jëkk dama leen def espèce doomu bàjjen ba noppi ñuy sama sëriñ boole ci ci ñoom lay jànge ci ñoom lay jànge tabarkalla tabarkalla ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan آمين آمين آمين آمين يا رب نكو يالا نمو يالا نكو يالا نمو والله ندسان والله ندسان والله ندسان في مو نك توباب يان سي ليغي يو خامني نيوم ديفا نني لي اخطاب يو ريوسير سي سين ديغنتك غايب defe nañ ne mën nañ koo réussir scientifiquement ba ñu ngi ci am na ku ma ci doon laaj sax ni ma ndax dinañ ko réussir ma ni ko ah, attan nañ ko parce que li ñuy def na lu ne la ñuy def ma ni ko attan nañ ko réussir de parce que théorie biñ ci def rek boo ko jàngee dangay waar waaye axtaaf yi ñoom duñ ci sonn dafay dikk noonu rek waaye ñoom depuis trois ans ñu ngi ci bëgg nañu liggéey liggéey boo xam ne rek diggante shahada ak xayb rek dootul am lu fi dox yombul nag yombul yàlla xam na ni yombul ñu ngi ci waaye tabarkalla tabarkalla évolué na ba ëpp waaw dañu amul yitte rek waaye diggante xayb ak shahada dara doxatu dara dara dara doxatul dara tabarkal la xanaa ñàkk yitte rek ñàkk yitte ñàkk yitte ñàkk yitte waaye boo amee yitte tabarkal la daa xam ne dara doxatul yàlla xam na ko am na bés ma gis góor gi xanaa liñ ko tuddee sunu maam Ibrahim moo tax góor gi Ibrahima Dieng di xaritu benn bakkanu Sidi Ahmed si bi muy dem bu dénku sëñ Babacar ca fan yële passé ma gis ko mu ànd ak lu mat fukki junne xale la seetal lool ak ba mu gaañoo kañ la ma nga ànd ak ñoom ñu topp benn booru géej bu nga xam ne parce que géeju barsax bokkul ak géeju fi parce que géeju fii ndox ndoxu xorom la mais bu bari sax kenn mësul gis lu rafet noonu te dafay mel ni jaan buy dem ndox mi ndox mi dangay waaru sax xale yépp a ngi set xale yépp a ngi sol yu rafet ànd ak moom mu def boppu neen sol benn turki moo tax ba tabarkal la tabarkal la moom kay xanaa ñàkk yitte rek waaye yàlla defal na leen sutura tabarkal nanu yàlla gën a taxaw te di bàyyi xelit réew mi rekk ni rekk ay bandee ngi fi yoo xam ne bala ñoo bàyyi dinañu fast sikkim yépp nañu fast sikkim yépp te mooy afaarit yi baaxuñu de baaxuñu de jàngoro junne attan nañ ñu ko sun waaw mbedd yeeg tali yéeg yépp seen yoon oto yuy mbëkkante fii seen yoon seen yoon ko defee nag bu bu bu bu guddee nag bu bu mara day tali duñ jàmm mukk mu jëriñ lan mu jëriñ lan lan lay jëriñ ba defee ma di leen ñaawal rek na di leen wax seen bàqu maam rek yàlla xam na ko dañoo xund xund xund waaye rek parce que li ñuy def ñoom léegi et loolu dafa ëpp dafa ëpp ah rës rës rës ci oto yi rës rës rës ci oto yi doo xam te buñ ko defee ba noppi kontaan ba nga ni lii lu mu doon loolu kenn mësu ko gis wata di ñaan di ñaan rek di ñaan rek di ñaan rek liggéey bi waaw di te yàlla yombal nag wërsëg yi yàlla na ko yàlla yombal ndax itam suñu système ah système bu tubaab la moom bu la yombalee sa wërsëg nga mën ci dund loolu rek mooy li nga xam ne mooy ci nekk tabarkal la yal ko yàlla def ko yàlla def ndeysaan tabarkal la tabarkal la ah moom sunu barke sëriñ rek nag man noonu laa ko gisee ndax Pape Malick mii dafa feebar feebar bu metti sëñ Babacar woo ñu ci guddi ñu ñëw mu ne dama ko tudde ki ma gën a sopp de kon nag waxal leen ma yàlla ni ko bu mu ko yóbbu waaw wallahi laadim ah nun itam nu jaaxle parce que boobu daanaka pap dem na ba noppi wala bu mu ko yóbbu de waaye daal waxam jëla sunu borom mujj topp wallaay ndeysaan looloo ngi ci ba ci sëriñ Mansour nii feebaram ba ca euh, euh, ba ca euh, le Dantec le Dantec te médecin bi ni daf koy condamné da c'est fini c'est fini nii ko wul sax de man ko xamulo sax lu xew ay font dama mujj génn baye mak Serigne Mansour ca ci cabine ba waye biñuy nodd fajar rek ma gis ko mu wëlbati ko ma ne waaw kay li mo mën am jàmm yàlla xam na ko moo tax ba mu génnee ba ñëw ci jumaa ja taxaw ci diggu jumaa ja ni docteur fajuma de kii moo ma faj loolu kenn mësu ko gis ndeysaan tabarkàlla Serigne Moustapha bi Senghor di defaraat parti bi nag war ko tudde PS ba ñu def congrès ba noppi tudd PS Serigne Moustapha di Senghor daal bu bëggoon am chance daf ci yokk beneen S muy PSS <laughs> waaw bu ko defee àqu Cheikh Tidiane wàcc leen ba faw waaye tànk defuñu ko àqam du leen wàcc ndax xam naa jikko turandoo lu dul jaxase leen ñoom ñëpp du ko def ah waaye man defe woon naa dafa koy tudde PSS benn yoon moom mu ni PS rek yem ca yem ca képp ndeysaan moo tax bi mu bàyyee ba bàyyi daal di wax ni naa ñëw seet si ko jaare ko nag ca protocole présidence Moustapha Niass ne ma c'est politique dafa bëgg ñu yëg ko ñu yëg ni woon na la te dafay wax ak yow ma ne ko moom ku xam politique la wallaay ndeysaan ma ñëw nag seet si ko ma nga triste lool ni ma ah man dama bëggoon toog fii wante dàq nañu ma ma ne ko yaa sa bopp dama bëggoon toog fii liggéey wante dàq nañu ma maa ngi dem ma ne ko yaa dàq sa bopp ne boo toogoon ku ne nga def ko fas ma ne ko kenn du la mënal dara yàlla xam na ko ndeysaan waaye rekk moom daal li gën te moo gën te moo gën daal mooy yàlla musal nu rekk waaw yàlla na nu yàlla musal daal moo gën nanu yàlla musal nanu yàlla musal musal njaboot yu jigéen yi musal njaboot yu góor yi musal xale yu ndaw yi yal na ko yàlla def tabarkalla tabarkalla te notal nu sunu noon yi notal nu sunu noon yi nga xam ni taal réew mi rekk la seen xel nekk waaw dama ni la zayir nañu ko defoon mara dee taali 12 ans yi rek fu ne lañ ko def léegi nag fuyee leen dese Sénégal la leen dese waaw ndax jaaxle nañu ci ñi fi nekkal yonent bi ci jàkk yeeg ci daara yeeg yëpp mënatuñ ko supporter mënatuñ ko supporter moo tax yéen itam di leen fayu di leen fayu di jàng ayatul kursi di jàng fatiha sax bu ngeen ko jàngee ñu daw dem seen yoon ñemewuñ ñemewuñu alquran ñemewuñ ko mukk góor gi def ma ni woon sa maam moo waxoon ni kay fi yëpp yi naa ko jàng bu fi jógee waaye man wóolu naa ko ba jànguma ko ma ni ko ah kon jox ma ko jox ma ko de ma soog a d'accord ci loolu ni ma waaye kenn du ko jàng lu ëpp téeméeri junni ma di ko téeméeri junni de ku bëgg a dépense di di nga sàkk pexe wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan yow ku ko jàng téeméeri junni mu écrasé la ko man de lool duma ci fekk yàlla xam na ko ndeysaan yàlla xam na ko waaye tabarkàlla seen ñaan a ngi fi du fi jóg fi jóg fi jóg te ñoom ñëpp mbiri Casamance yii damay voyagé ma ne Abdou Aziz góor gi Babacar Diop kat feebaram bi c'est sérieux maa ngay dem nag te dellu waaye na nga dem seeti ko ngeen waxtaan mu dem ci góor gi Babacar Diop ndaxee ma nga tëdd mu ne ko mu ne ko ndokk bi nga ñëwee ndax gis naa Serigne Babacar si nee na nga wax Cheikh mu dem Casamance te bu fa jógee na dem Sénégal oriental ma ñëw Abdou Aziz wax ma ma ni ko nag ñoom xam nañ ni problème mu Casamance yomb ñoom xam nañ ko de man ni ko wante itam fa ñu war a tàmbalee tàmbalee nañu fa te lool rek mooy li ci am solo li ci des chef politique ya koy mottali parce que waa kër yonent baa nga fa ca Casamance وكر شريف يونس أقفى يجل شريف بشير شيخ لكو سين بابا كرسي تموي تاو قرد شيخ لكو أكسين بابا كرسي جل شريف بوبكر شيخ لكو حاج منصور سيتل بيلي غيري جل شريف مكي mi niroog Alaaji Habib seexale kook seetal bi liggéey ñu commencé ko noonu Cerno Muhammad Fóote sëñ Babacar def ci moom xasida bi mu def ci moom pour jox ko conscience ci li mu représenté foofu Cerno Haruna Rachid la même chose ca Guinée Bissau ba sëñ kër jël taawam taawu Haroun Rachid taf ko ci boppam ndax ma Pam Malick a maase ñu boole ko Pam Malick ñuy ànd loolu kon la ca des liggéeyu politiciens yi la ñoo war a seet fu ñu jaar nag Casamance lu ko mooy àdduna tukki ma ne nag li ñuy def d'abord nañu seet ci biti réew ñi amee buum yi di xëcc foofu lañ koy tàmbali bu ñu ko deful rek lu sotti man leen góor gi nag bu waxee ne ma dem fa naa fa dem waaye dem fa kese kese nii rek comme ni ñëpp di def kooku jaaduwul il faut que ñu xam ñan ñoo ame buum yi di xëcc il faut que ñu xam ko benn ba Jean Collin ni ma man de dafa am lu ma jaaxal moo di dafa am ñuy digle ni Sénégal na xeex ak Gambie yàlla xam na ko mu wax ko ba noppi ree ma ne ko kooku kenn du ko ree ma ne ko parce que mën na indi lu nekk ma ne ko Sénégal buy xeex ak Gambie rek ma ne ko Angleterre di intervenir ma ne ko amul werante sax ma ne ko te bu Angleterre intervenir et France intervenir ma ne ko. troisième guerre mondiale moy ñëw mais ne ko lol kay ken xalatu ko mom kay da ngay waxa waxa waxa wax bu wax ba bugg a tos kare noonu nag la waye affaireu Casamance dal liggéey ba first ba serigne ci liggéey ni mu rafete dafa ëpp dafa ëpp kër Chérif yunus kër kër Chérif Mahfouz kër Chérif Mahfouz amna fu foofu bu ma tuddé dom yalla xam na ko la nekkoon fii yalla xam na ko waaye boo gisee boobu ba tey muy def nii rek def nii c'est que kenn liggéeyatu ci kenn lu dul rek daje nii wax nii waxu politique politicien rek génn ci te kooku baaxul te kooku baaxul il faut que ñu wax ci nag moo gën wax bu sérieux bu sérieux moo gën ndax itam nag barab bu am solo la wax dëgg yàlla barab bu ama ama am solo la sama benn doomu ndey moo ma daan wax ni ma ñëwal toxu si foofu muy Edouard Diatta Edouard Diatta benn doomu ndey la ci man moo ma daan wax ni toxu si Casamance danaa la fa jox tool jox la fa kër waaw mooy jur sama doom bii nekk ak président ci protocole bi wallaay ndeysaan waaye fu am solo la moom itam ñu ñaan yàlla yàlla libéré leen tabarkalla ñu am jàmm moo gën de waaye xeex rekk bu dul jeex faw abadan bu baaxul bu baaxul waaye nit yàlla yi de ñoom jiitu nañ ci jiitu nañ ci de maa la ko wax nitu yàlla yi jiitu nañ ci Chérif Bachir lañu def muy seexu Sëriñ Babacar ñu jël euh, Chérif Boubacar moo tolloog Alaaji Mansour ñu jël Chérif Makki parce que Chérif Makki dafa bokk ak Alaaji Habib jikko dañu bokk jikko yàlla xam na ko ba faf xaritoo man nag mu def ma doom ba noppi di ma tappaas rek waxtu wu ne mu ñëw tappaas ma te dama ciy bég ndax daf koy def façon bu yiw bu ñëwee am na bés mu téléphoné ma ni ma maa ngi ñëw ca Tiwaawan la ma wax soxna Safi ni ko na ko defaral ndékki ma defaral ko ndékki mu mu ñëw ñu commencé ndékki ñu servir ko mu ni ma ay boo ma jëkkul woon ci soxna sa maa koy jël ma ni ko lu tax mu ni ma dafa amee bar bakkanu tukulóor ma ko bakkanu tukulóor kay ñëpp ko amee <laughs> su fekkee da bëgg bakkanu tukulóor ñëpp waaye daf ma soppoon bu mu ëpp ba bi yi xewee borolëkk yi ñuy def sëñ Babacar du ko tab mu ni ma jógal wax ci ndax boo ci waxul xam nga fu porte la yi mujj ma ne ko mu ni <laughs> jógal wax ci ko lu ma ci man mu ni ma wax ci rek wax ci rek waaye mësuma gis mu ko am yitte comme Chérif Mbacké wallaay ndeysaan il m'aimait beaucoup yàlla xam na ko waaye Chérif Bachir moom nitu yàlla piir la wilaayam kenn werantewu ñu seexale kook sëñ Babacar yàlla xam na ko Chérif Màkke ñu seexale kook Alaaji Abib xam nga kooku liggéey bu rëy la Cerno Muhammad Fóote sëñ Babacar woy ko ah, te loolu ku ko am nit ñi xam ni am nga wilaaya loolu kay amul werante Cerno Haruna Rachid nag moom moo boole woon Cheikh ak yonent bi benn xasida duggante leen kenn xamul nu mu defee xasida bi man amatuma ko xam am nga ko waaye dimbali ma ngir yàlla may ma ko moom daal mësuma gis mukk xasida bu rafete noonu mukk Cerno Haruna Rachid bu Guinée Bissau boole Cheikh ak yonent bi way leen yépp mu def ko tasniya ba mu jeex wallaahi kenn mësu ko gis kenn mësu ko gis pour wax la ni loolu jiitu na ba noppi li ci des nag moom ah ñiy nekk chefu politique yi ñoo ko mën a dox nag mu sotti parce que nag Casamance ci Sénégal la bokk ci la bokk nag ñu dox ko mu gën ñu dox ko dox bu rafet wax ko wax bu jekk kenn ku ne xam luy sa ciru moroom kooku farata la ëpp naa ñàkk def sax ëpp naa ñàkk a def tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel te bañ ko def folklore yëfu folklore senegal fo dañu bëgg folklore bu mu ëpp te xaqiqa rek moo am solo waaye folklore bu ëppee dafa yàq bu fekkee ni nag danga koy def ak mesure ñu bal la ndax Maodo wax na ko te nag waxu Maodo kenn mënu ko dàq kenn mënu ko dàq kenn mënu ko dàq yenn gaaral yi ngay dégg yépp caaxaan la de ma wax la ko mbiram kenn mënu ko dàq mukk kenn mënu ko ah ad daruraat tubixul maxduraat seetal loolu laa doon wax sama mbokk mi ma doon wax naan moo waaye yow sa feetu euh, bii ñu lay feetal nii di wax affaire yu kenn xamul parce que loolu du yàq ma ni ko mukk ci daruraat yi la bokk ndax ñi koy def dañ koy def ak mesure yàquñu dara du ñu naan sàngara ñu def leneen dañuy bëgg di fàttaliku rek bés bi ma ganee àdduna rekk mu neex leen ci seen xol ñu ñuy niti xol ma ne ko kooku mi ngi dugg ci ab daruraat tubixul mahduraat ko wax ko wax ndax daruraat tubixul mahduraat nee na nécessité dana tax nga nga fekk lu ñu tere mu dagan nag mu dagan nga def ko dafa darura moo tax te léegi nag ah nit kay bu la yéenee ba ni la dama lay dama lay jox cadeau d'anniversaire danga ko koy delloo mukk donc ko delloo danga koy jël biir walaay ndeysaan loolu kenn mësu ko gis ab daruraat tubixul maxduraat ak daruraat tubixul maxduraat Maodo daf ko daan répété rek waaw nécessité dana tax lañ la tere ñu ñu bàll nga def ko bàll nga def ko loolu pexe amu ci pexe amu ci yàlla na yàlla taxaw te itam rekk ñu bàyyi xel li ma li ma li ma waxoon ñu fexe ba euh, li mu euh, sëriñ si bañ a ëpp li mu taalibe yi kooku moom lu mat a bàyyi xel te euh, limu politicien yi itam bañ a ëpp limu électeurs yi loolu euh, lu kenn ko def ñu bàyyi ci xel du dëgg farata piir la te yàlla suturaal sunu tante yeeg sunu bàjjen yeeg tabarkalla sunu sœur yi sunu cousine yi yëpp yàlla suturaal leen yaa jigéen moom sutura rek la am ci kon yal na yàlla suturaal leen te teg nu ci nag waaw suturaal leen te teg nu ci tabarkalla suturaal leen te teg nu ci tabarkalla tabarkalla tabarkalla yal na ko yàlla def na ko yàlla def ah gàmmu la nag yonent bee ko moom tabarkalla li nu ko yéene yépp sax mënuñu ko ko defal waaye fi sunu kàttan yamit ñu defal ko ko rek dara ko ci ndax moom mérité na ko te amul ñeneen ñu dul ñun wax dëgg yàlla waaw amul ñeneen ñu dul ñun tabarkal la loolu la yàlla dogal xam naa ñu jàng فاتح بسل تكتي آية الكرسي تكتي لقد جاءكم تكتي الإخلاص تكتي فلق تكتي الناس تتجيكو صلاة الفاتح يلا دفل نيو باخ يب جظاهرك باطن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 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن